loolu yépp nak àndoon ak i berle ak i teraanga yoo xam ni yelloo na ak bés bi Hasan Euh, togg nañu fukki mën ak euh, ñeent comme niñ ko daan defee rek ah di ñaan yàlla mu sutal lépp wax dëgg yàlla ñu koy joxe jàmbaar lañu ñuy togg jàmbaar lañu ñëpp jàmbaar lañu te yàlla rek tax léegi nag ñu ngi ñaan ci yàlla alxuraan jiñ fi jàng la ko tàmbalee ci aadama mu jëkk ba ci mu mujj ñëpp jariñu ci loolu dong lañ ko dugaloo du leneen tey ñaan yàlla. ah ñi nga xamante ne ñoo ciy def seen i dërëm mbaa seenu ñaq yal na leen yàlla fay ngën ji pay ci daraje Mohamed alayhi salaatu wa salaam barke borom Touba jërëjëf wa salaam. ginnaaw bu euh, ci kàddu yooyu ñi gis nañ liggéey bi ni mu doxee ni ñi soxna yi ni ñu àndee mobilisé wu lan moo waral lool ndax gis na ñëpp dañ cee ànd bokk ndey bokk baay ñëpp jàpp ci liggéey bi mu am organisation lool. ak nan lan nan lan liggéey bo waaw maanaam xam nga ñi ko daan def daanaka ñoo ko def keneen yokkuwu ci am nañu Pastef tënku nañu ci la def wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañu amul it benn faay dara yàquwul ñu ngi koy def daal sàllaw ni mu waree ñu sant ñëpp daal di jërë ngeen def fekk la fii ci bernde yi bëgg a xam seen taxawaay ak bis bi nan ngeen ko waaje léegi comme ni mu nekkee mbiru famille noonu la si ñëpp di duggandoo rek ñëpp siy jàpp ñëpp xale yi gën a ndaw ñi si gën a mag ñëpp siy jàpp kenn ku nekk ak noo siy jàppee ñii dañu si def seen doole ñii def si seen alal waaw waaw waaw waaw loolu moom chaque at rek ñun ñoo koy taxawee ñun ñoo koy taxawee dañ koy def benn groupe boo xam ni ñi gën a ndaw ak ak mag ñi day am noo xam ne noonu lañ siy jàppee doxal ñu defar wàllu boisson yi canettes yi ak fruits yeeg yëpp niñ koy séddalee rek mooy comme niñ koy defee rek chaque at rek noonu lañ koy defaree mais ñu ñoo féete woo si wàllu kooku ñu lañ si féetalee. waaw waaw waaw bari gi moom ëpp instant bi kay li si nekk moom ëpp la ñuy wax ëpp mais du nekk loo xam ne luy manqué la ndax lu ñuy def rek lu ñuy def chaque at rek at beneen at bi bu ñëwee dañ koy gën a yokk te bu mbooloo mi yokkee bu mbooloo mi yokkul rek ñun dañuy yokk sa at ndax dañuy wax ñu ni gan ñëwee rek ñun si loolu la ñuy basé sant suñuy da tàmbale ko ci suñuy maam rek ñi nga xam ne daanaka ñoom ñoo nu meññ wàcc ba ci suñuy baay ba ci suñuy mag ba tey ñu nekk ci seeni rak ak seeni doom li lépp ñu sante ko suñu borom waaw comme ni nga ko waxee rek ginnaaw moom xam na ni euh, at mu jot dañ koy def dafa fekk ni xëy na rek mbooloo lu ñu bokk day day mbooloo mooy doole daal ni ma ko mën a waxee donc ba tax na kenn ku ci nekk ci kaw ba ci suuf koo ci jël rek def nga ci sa ñaq def nga ci sa doole ak lépp loo ci am bàyyiwoo ci dara muy loo xam ni dafa war dafa war na am na am da koy def ngir sama waaye lu war la di ci sant ñëpp boo comme ñu ngi ko gisee rek wa ñu ngi ci waaw ci wàccaa yi ci bernde yi di ko waajal ni comme ni nga ko wax rek ay maanaam lu lépp ci wàllu bernde rek ñu bañ a lim lépp bernde la rek te nit ñi rek ñoo tax gan yi ñi ngi xam dañ fi ñëw ak dëkk yee ñëpp rek loolu rek moo tax ñu koy def di ci delluwaat di ci sant borom bi moo mu ñu ko yombal di ci santaat xale yi ñoom it ñoom ñëpp gis nga leen ñu ci biir wax dëgg yàlla am ci paste ak taxawaay bu mat Euh, te dara taxul ngir bis bi rek donc di ñaan borom bi tamit li nga tax li ma ko waxoon sànq suñu maam yi xam ñoo tax ñu koy wax ñoo tax ñu koy def ah di leen ñaanal ñoom di leen sant di leen gërëm amaana suñu ñëw àdduna suñu borom daf ko jaare ci ñoom muy law ba fii yam fii nag xëy na dafa fekk ni comme ndaw moom mooy nekk mag ëllëg bis dina ñëw fa suñu bàyyee toog ñu ñoo fay toog maa xëy na ñoom boobaat du ma ñaan ñi jóge fi waaye xëy na duñu seen le dina ñëw ba duñu mën a toog fee boobaa ñoo leen fay wuutu di def leen doon def suñuy doom ak suñuy nekk suñu place ñu kon loolu lépp al sant yàlla la alhamdulillahi wa salla abada halallazi bihi lana luda bada sayyidina muhammadin wal ali وصحبه ذوي النوى للوالي هذا وإني اليوم ذو توسلي له بأسماء ذوي التفضل فقلت يا قريب يا مجيب صل على الذي به تجيب واقبل به نظمي هذا يا كريم وهب لمن به يناجي ما يروم ربي بنوخ وبإبراهيم اغفر ذنوبي واكفني الرجيما وكن بموسى lii moo gënoon fës ci bëccëg gi nga xam ni ñu ngi ko doon defal ay ñaan jagleel ko ñi bokk ci njaboot ak càllaleel jaañ te yàlla moom seen bakkan ñuy ñaan rek lañ fa def ci ay jaamu yàlla jëmale ko ci ñoom yàlla jotale leen si ak bépp jullit boo xam ni fekk nga leen fa wala ñu fekk la fa ba demee nag jàmm insha allahu rabbi xat